vous présente le 14 janvier fils de Bala Lacrosse drapeau Ousmane Sakal maire de Sakal Mercadier Réunion Tchatouyov, drapeau Armodou Bambassar, directeur général de l'artisanat deux grandes affiches une même journée ETDR Events le 14 janvier sponsor officiel établissement toubadarou Rahma, Junou Salam Karo Tampico Une Global Textile Kir Arab Business jërëjëf mbokk yi am mbégte kontaante bu baax a baax pour ñu ñuy suivre ci ETDR Média di leen nuyu saa su ne fi ñu leen daan nuyoo di leen jox seen wàccuwaay di leen toppal lépp lu nga xamante ne bii rek mooy actualité ak mooy lamb di leen wax comme ni ñu koy waxee chaque jour rek avant pendant après di koy topp jox ko ñu ñuy suivre di ñu bàyyi xel ci ETDR Média ku ne xam na ni diggante Modou ak Boy Niang combat bi Gaston Production moo ko taxawaloon di makan encore une fois di ko féliciter di ko jaajëfal. ci journée bi nga xamante ne bi jox na ko amateur jox na ko képp kuy dund làmb waaye tamit presse bi tamit ñu ngi kontaan ci moom ndax bien vrai que joxul presse bi accréditation ñëpp mais ku ci nekk jox na la ticket bu seer nga ñëw dugg mën a toog seetaan soo paree nga def sa liggéey kon makan ñu ngi ko jaajëfal di ko euh, félicité ci li nga xam te ne bi def na ko waaye de wax ngeen wéy di abonné di bës notification yi waaye di topp vidéo yi à 100 pour euh, euh, chaque instant muy ñëw comme ngeen di ngeen ko am comme ni ngeen koy bëggee tey nag maa ngi fi nga xam te mooy parcelle seet ci ki nga xamante ni mooy Pape Mbaye le coach de Modou Lo muy ku nga xamante ne bii macha allah sunu xarit la sunu grand la di ko ziar bu baax a baax tey nag dama ko siif dama ñëw rek ubbi buntu dugg mais maa ngi koy ziar bu baax baax di wax gars yi ngeen wéy di abonné di bës notification bi ñu fas yéene waxtaan ak moom ci diggante naka lañ ko préparé naka lañ ko entamé ba am ci ndam dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñuy suivre su ko defee ñu waxtaan bi Habib Pape maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la euh, maa ngi lay fay di nuyu ahlu làmb

waaw euh, entraîneur ak poulain la rek. sama diggante ak Modou Lo entraîneur ak poulain yàgg nañu mais loolu la ko tey Modou Lo bi ñu koy formé mu nekk ci écurie bi à bas âge di ñëw di foo ko jug di di ko daanu ba tey fi mu toll ci biir làmb li mu am nii ci biir làmb bett na la wala lu nga xam te ne bi xamal nga ko ci moom. waaw non gis nga àdduna moom lépp loo gis ci àdduna sabablu la. yàlla mooy dogal. te da gëm ne day nekk. nga sabablu loolu rek lañ doon dund quoi mm-hmm. plan yépp iya, aussi mm-hmm. kenn ku ci nekk dañ lay gëm li fi sawar sax ngay am mais liggéey bi mooy ñu ñëw ci écrit bi di entraîner moom loolu la fi nekkoon ak ay moromam ba yàlla dogal lii tey 2015 mu tenté pour bëre titre roi des arènes waaye da ko perte digganteem ak euh, Bombardier mu ñëwaat ci digganteem ak Eumeu Sène réussir ko waaw noonu la aduna boo boo dee dox di avancer di avancer da nga dem fenn bon perte boobu mu ko perte moo ko defaraat ba bi mu ko amaate mu réussir ko. tey gis euh, mu ñëwaat ci beneen combat muy le cinq novembre diggante mag euh, Ama Baldé combat bu yàggoon bëri woon coow combat boobu naka ngeen ko gérer ba génnoon si. waaw xam nga euh, waaw parce que amaa Baldé dafa nekk un champion boo xam ne vraiment dafa am ginnaaw te it amee combat da ciy feeñ mm-hmm. donc bu waree daje ku mel ne Modou Lo ak popularité Modou Lo

jëm ci Boy Niang ko continuité lay doon daal préparation bi continuité lay doon parce que am na lu bari déjà ko am lu daan Ama Baldé yaakaar naa da ngay mën da ngay maintenir seet looy dolli te xam naa la ngay dolli du bari waaw. te ginnaaw diggante Ama Baldé ak Boy Niang bi matul deux mois. man non un mois la rek un mois yi manqué na sax parce que le 5 novembre non ëpp na un mois le 5 novembre le 1er janvier waaw matul deux mois c'est vrai mais continuité la rek continuité la waaw. mais ndax amul changement par rapport ak tey ci ñaari adversaires yi. ni ñu préparé Ama ak ni ñu préparé Boy Niang na wala am na lu ñu wàññi tuuti. waaw effectivement tactiquement day change dina am changement parce que Boy Niang ak Ama Baldé bokkuñu ni ñuy bëri maa ngi leen di encouragé bu baax nag de passage di encouragé mon frère Jules Baldé mon frère Cheikh Ndiaye les deux coachs là maa ngi leen di encouragé bu baax. Mm-hmm. di encouragé aussi grand De mm-hmm. euh, waaw ñoom ñaar bokkuñu ni ñuy bëri. Mm-hmm. donc seen préparation dina am tuuti différence ci côté technique ak tactique. tey ci digganteem ak Boy bimu mu ba tollu ci semaine combat yi la la gëna liggéey. rapidité ak reflex reflex wa dem ci ah, dem ci aussi nam loxo yi ba mu neex. waaw parce que amna na ay entraîneur boxe yu baax ko ci melni bo liggéey maa ngi koy nuy de passage nam loxo yi ba mu neex wa su taxé fofu tay tey ñu bëri dañu doon Boy dafa yor droite croisé droite bu nga xamanteni bi bu modlo Lo xeexee comme lim mu xeexee diggante ak Ama Baldé li metti mëna na ci modlo wa non modlo nam wara xex war a xeex Ama Baldé du lay xeexee Boy ñaw

li ci des lépp moom xam na fi muy waaw. bu ñëw ci biir combat bi Modou ni mu bëri arbitre ñu léewtoo def de barrière tey Modou Lo xaw a am tuuti isan baay ci diggante mag Boy Niang ñu bëri ñu fekkoon ne Modou mooy dem ba day songu Boy Niang mais Boy Niang mujjee ñëw songu Modou waaw ñëpp ñun ñëpp daje woon nañ ci waxtaan ci nekk ne Boy Niang moom daw jëli tànk Modou moo ko arrangé waaw waaw mais ni mu euh, tànk bi position bu Modou taxawee. ak Boy Niang fa mu ko yegg day difficile pour Boy Niang mën a amortir dara moo tax Modou Lo kidnappé ko foofu wàcc ko ci suuf téye ci ngembali nag la njatt ko waaw que am na lu mu ko doon jëlee peut-être dana ci mën dara mais fa mu ko fa mu ko yegg foofu mënu fa dara te foofu la ko Modou Lo piège parce que adversaire bu dee daw di ñëw boo xamee ne ki jël ko tànk la mais na mu ko bëggee bu mu ko fekkee noonu jëlin wa na metti ci ñu moom wala bu jëlee di ko mën a kidnappé téye ko fa ba nga xam ne la mu du ko am. loolu dañu ko préparé ci xam ne non bu baax. xam nga xamoon nañ ne ala kulli alin moom day jël tànk li baa ndigg li buy song loolu rek la fa mën a am. tànk la wala ndigg heureusement mu dem ci tànk bi ba mu demee tànk bi aussi fekk na boobu Modou Lo da ko ëmb. Mhm. bi ko Modou ëmbee nag léegi bu ñu xeexam mu daw jël tànk bi Modou Lo bloqué ko foofu téye ko fa nag daal def rotation gën ko contrôler ci suuf. Mhm. du jóg waaw gën ko wàcc muy sigi naa da koy wéyale mu Lo yokk ko. ni kon jël bi xaw na nduróog ni Boy Niang daanee Balla Gaye waaw am na tuuti différence nag parce que Boy Niang Balla dafa jël bay sigi Boy Niang enchaîné ci kawam Boy Niang dafa plaqué daf ko plaqué ci biir waaw Balla balage mais mu Lo plaqué wu ko Modou Lo daf naa da ko da ko yokk mu dugg Pikine daan Eumeu Sène daan euh, amambal tay mu ñëw daan Boy ñang tay modlo digënté mu wa Pikine non c'est-à-dire man lo sax duma ci bëgg di prononcer manam du problème mu bi mais man limay japp jàpp toujours mooy adversaire bi rek mo ci am solo adversaire mo ci am solo dafa tomber aussi que ne mu tégalé mu jël ñaar combat yi xamné lepp lépp lako la ko té lool aussi pour la première fois bon suñu sañon sax bu jógee Pikine day bëri yenen combat soo ko dugaat Pikine mais enchaîné ci benn kii rek Pikine kese wala enchaîné ci Guédiawaye kese loolu amul sens quoi amul sens quoi parce que tamit ñun dañu souhaité équipe bu ne am ay champion parce que làmb dafa yaatu bu ne am nga ci sa wàll te kenn mënul nekk lépp la quoi tey ñu bëri ñu ngi euh, taxaw seetlu wala boog ñu ngi wax ci Modou ci ni muy ñëwee ci biir làmb léegi par rapport ak Modou bu ñu xamoon bu njëkk ba changement boobu lan moo ko ak loo jàpp ne moo tax mu ñëwee noonu ci làmb léegi. ban changement. tey takkaay yi bëreetul xam nga bagages yi mu daan rangoo bëreetul léegi lan la. waaw na côté mystique moom dafa am ñu ko moom man nag côté mystique daaw ma ci prononcé bon xam na li mu war a def yàgg na bëri bu demee ba xool ne lii rek doy na ko li ko lii rek doy na ko ah mais bu ko neexee mu def ko l'essentiel mooy ñu li nga xam moom la ñu amee muy préparation bi lu ñu ci deseel dara. te bi ko préparé am ngeen jot ne kat kii li ñu ko préparé bu ñu demee dina ko appliqué. ah oui bien ah préparation préparation bi pratiquer appliqué rek. difficile la noonu difficile la waaw non difficile parce que xam nañ ki ñu yor déjà yàgg nañ ko yor te bu fekkee ne li nga koy laaj ci entre yi mi ngi la koy jox sam xel day dal lépp sabab la rek dañuy wute rek yàlla mooy may ndam sant yàlla suñu borom. mu nekkaat roi des arènes encore tey su ma xoolee Balla Gaye nekk roi des arènes premier combat am da ko gagné diggante mag euh, Tapha Tine perte deuxième combat diggante mag Bombardier Eumeu seen ñëw nekk roi des arènes premier combat mu perte ko diggante mag euh, Modou Lo Modou Lo gagné ci euh, Eumeu Sène premier combat mu réussir ko ci Ama Baldé deuxième bi mu ñëw réussir ko ci Boy Niang ah waaw bof ku kenn ku ci nekk si loolu la yàlla dogal dañ koy nangu rek waaw roi des arènes bëri nekk roi des arènes bëri bëri ñaari combat daan ci am na solo dafa mel ci carrière am ci euh, génération moo ko ci moo ko defal waaw mën nañ jàpp loolu mën nañ jàpp loolu bon parce que xam naa ne ku ci mel ne Tyson moo nekk à part Tyson moo jël roi des arènes bi ci mànga bama jé nang ko ci mom moom joy aussi Ibou Ndafa la ci daan yakana naa Yékini nangu ko ci mom Yékini nag moom ràññee na ci mais bu nga ko ñàkkee contre Balla Balla def naa ben victoire la ci am joy wa c'est vrai deug la wa deug la wa mais loolu yëpp aussi lamb la xam nga lamb mom dafa di euh bo amé victoire nak say waxtan ci lay gëna neex lool la quoi. daa mel yaa ngi de yaa ngi de. non kay sa fekk sa tey père père sha allah non c'est-à-dire pression bi bo jugee ci yene événement yi pression bi wàcc pression mën naa dafa une semaine soo wàcc nit ñi bu ñuy tëbëkk dal sax doo ko tal waaw dafa metti quoi li ngay yenu parce que coaching dafa xaw a doy waaw parce que responsabilité la boo xam ne nii lépp ci yow lay mujje yaay mujjee ak mbër mi waaw non waaw mais sant yàlla rek entraîneur moom sacrifice la <laughs> mais tey sa cofeel ak Modou sa diggante ak Modou Lo bëtu ñëwante bi nga am ci moom tey lan la Oui, non la rek xam nga dëkk xam parce que def écrire 23 ans à mm-hmm. 23 ans lay am ren en te moom bi fi 15 ans 16 ans xëy na dund bu yàgg boobu ñuy mm-hmm. et puis ñuy ay ay aussi mm-hmm. c'est normal nga am ci ñoom ñeewantal. ci biir combat bi Lo def na erreur naam moo am ndam non wax dëgg gis tactiquement teg ci yoon. teg na ko ci yoon. boo ñëwee loo ne la def combat wa c'est-à-dire ba ñang taxaway Modou Lo aussi dafa lëndëmal xel mi dafa melni ay tactique tactiquement xamatuloon lu mu wara def waaw fi ko Modou Lo genn parce que peut-être que bu fekkone ne Modou Lo dafa ñew sóobu ci ko indil ko seytane fofu peut-être mën na laal ay piège parce que Boy ñaa day dam yi mais Modou Lo dafa ñew fatt ko rek diré ko wut ci ko ba paré nak di ciokka ak mom jël temps waaw jël temps di ko xaar mu def réplique pour ñu mën a dugg ci asso yi mais ba tey boo Niang daal bon d'après nit ñi li ñu doon séntu ci moom nga xam ne moom la doon daane yenn combat bi démb daal dafa mel ne ku ñu ku ñu tëj ko tëj bàyyi ko ci biir quoi xam moo Modou Lo moo ko sutura moo ko prolonge donc foofu moom war na mais lan moo waral moom it mu téye boppam am calculam xaw a jaxasoo foofu moo jaaxal ñëpp. moo jaaxal ñëpp. jël na roi des arènes jëlaat na ndam li encore ëllëgu Modou Lo ñenn ñu naan Modou Lo daa war a bàyyi yóbbaale roi des arènes bi ñeneen ñi am na ñu mu war a bëre waatal tey noo gisee ëllëgam. waaw xam nga tey jii kenn ku ci ne ba ngay nekk mbër woowuñu leen ne kaay doon mbër yaa ko bëgg kon soo waree bàyyi bu demee ba sant ne war ngaa bàyyi da lay neex man bëgguma ñuy taxaw mbër naan ko am na mbër yoo xam ñu ngi ay tolof tolof ñu naan dañoo war a bàyyi làmb d'accord ma mbeur sa bu nekkee ci ay tolof da dang ko wara a jàppale ta te amon ne na ay jamono gudem neex lambam neex muy bëgg muy bëggal ñëpp mu dem ba jafe-jafe dal ko rek ñu naan na baye ak yoy rafalu ma kàddu yoy mbeur bu ba sant né warna baye dina dina dina ko annoncer mais ya am nga gis-gis ni kat ki ku wara amana na carrière ci bir lamb warna ko dem wala warna ki mais mbeur Lo tologul fenn c'est-à-dire euh, ñi muy bëril ni ñu naan ay rakam lañ ak yoy de leen de leen mak ci lamb parce que mo leen

mais il faut am ño xamné ne ni sawaay ñom dinañ am luñ luñ damo ci yow hmm. lolou mu ta lolou ñu ñoo ko ëppale waaw Balla Gaye Modou Lo moo ko ëppale loolu Lo deux fois mais hmm. ñu daan nañ am seen deux fois daan gri deux fois donc loolu loolu dara kon kon revanche bu daal du amat kon ah yaakaaruma mako de hmm. yaakaaruma ah bon selon man selon man troisième conférence do amatu amatu amatu sens ci lam ñaari mbeur buñu xasse ba bëre deux fois rek ak amatu jeex na waaw kon léegi mo lu ko lay bëral xale bi gis laa fi gis moo tam ci contrat Reug Reug waa mais déjà moom ci diggante mois de novembre ak janvier la bëri muy deux combats yu mu tegale mais pourquoi pas mënul xaar dalluwaale noppal yaramam yaram dañ koy noppal. mais nag ñëpp nee nag da ngeen a dévier Tapha Tine bu so sawaroo leen ci ay waxam quoi. kan moo ko ki ko ki ko tudd na ko wax ñu tontu ko. non amateur lamb ñuy dund lamb. nee wiiri wiiri bi dafa yàgg ci côté boobu. est-ce que mës nañu ko proposer. kenn mosuñu ko proposé xam nga tey jii la yi di wax mën nañu wax combat combat combat mais est-ce que gis nañu promoteur bu proposé Tapha Tine ak mës naa amam déet moo la jóge la su dema la jóge ci lamb ci combat mais li am solo ba am solo moom mi nday mbil ga ak estafam ñi muy wax ma na kuy ne ci plateau bi di mbel mbeli mais moom personnellement Modou Lo ak ñi mu war a waxtaanal pour ci combat am yaa may dégg ñooñu ñoo am tontu la mais kuy wax naan Modou Lo Taphatine Modou Lo Taphatine te kooku tey ji fa Modou Lo di waxtaanee du ko fekkee kooku bon ñu ko tontu. moom lu ñor la wala. dama ne ñoom ñëpp Modou Lo war na mën a bëre ak ñoom parce que Modou Lo moo nekk koo xam te ji képp ku nekk ci kaw war naa mën a bëre parce que uh-huh. wax mu leer. Mm-hmm. ko. <laughs> dara. <laughs> man élément laa génne. laa génne. formation démb la yow kay waa démb yéen li ngeen a dangereux waaw sant la gërëm la di sant aussi suma soxna di sant njaboot gi ak suma yaay parce que da sama mbokk yi aussi maa ngi leen santu baax di leen gërëm parce que tey jii ba foo foo far ñu far fa. mais na de ñun ñun ay sacrifice la ñuy entraîneur yi <laughs> non ñun xamu tax euh. ñun coono bépp ñoo koy daj. ñoo koy yenu pression beeg yooyu sa mbokk yi sa mbokk yi dañuy sot ñu toll ni depuis booba léegi appel yi may jot ñëpp di ñaan doo am de famille da ngay daw mais entraîneur balaa nga ko doon foog nga nag am amour bu rëy yaatu ci sohol xol amour bu yaatu ci sa xol sinon boo ko defee doo sori. mais tamit est-ce que mbëri tamit ñi ngi eh. eh, rendre moyen entraîneur yi ñi entraîneur ñi ngi gis seen bopp ci xale yi tey. waaw mais liñ lay yéene rek lañ lay jox liñ lay yéene rek lañ lay jox xam hmm, nga boo nekkee kilifa da ngay am sutura. du lu la neex ngay wax du lu la naqari lépp ngay wax waaw mais nañ sant yàlla daal yàlla yàlla parce que entraîneur fi mu war a teg bëtam mooy résultat ya nga war a def mais boo xoolee boo boolee ci résultat yi leneen rek da ngay da ngay daanu man ma xasee ba jóg pour diriger gérer sama sama écurie mm-hmm. résultat rek lay xol leneen luy ñëw day ñëw fekk ma foofu mais pas lo xam dama ci tek sama bëtt parce que bu yàggee da ngay décourager mais na nga am amour bi am passion bi mm-hmm. limu laaj nga def ko li dess ngeen bay ci loxol yalla quoi loolu moy àdduna mm-hmm. ah, kontaan naa ci yow. merci beaucoup di gërëm wa parcel uh-huh. supporter Rock energy modlo wa 100 parcel aussi boy sen jambar lañu mbër Rock energy aussi vraiment bàyyi ñu dara mu sedd taxaw nañ taxaw seen seen seen champion taxawaay bu rafet. coach yi cent pour cent bi aussi ñëpp. coach Rock Énergie aussi ku ci mel ne Lahad Diop Thionck Sil ak Basirou Dieng aussi vraiment ñoom seen taxawaay rafet na ñoom lato waaw. Euh, coach Dia Souka. Souka maa mon ami Souka maa ngi koy nuyu di ko ziar. vraiment ñoom ñëpp comme que dañuy woote 100 pour cent. bu champion di bëre ñun entraîneur dañ ciy bokk liggéey quoi. Euh, di nuyu supporters yi xarit yi am jaam yi dëkkandoo yi vraiment ñëpp aussi ñaan yi nangu vraiment di encourager aussi Boy ñaan euh, di encourager Ama balde di encourager Jules balde di encourager aussi Cheikh ñaan les deux coach di encourager sama grand dégol ak waa Pikine yëpp euh, di leen di rafetlu aussi fair play bi combat yi jàll na ci jàmm kenn wu ci supporters li ñu doon sóor ci ñoom defuñu ko yàlla na sax te xam ne làmb ji nañu waxante dëgg amateurs yi supporters yi laay wax ak mbër yi ñoo moom seen yëf Jurbel amu ci dara Cheikh Ndiaye amu ci dara Pambay amu ci dara Grand Dégoul amu ci dara di nga làmb jooju li ñu ñemeloo promoteur ba muy fay mbër supporters yi la te mbër yi ñoom ñoo ko waral kon nañ defar seen seen yëf nañ téye seen yëf mooy nañ nekk ci jàmm làmb naa ànd ak fair play supporters yeeg ñëpp ñu défar seen lamb te xam ne ñoo ko moom seen yëf la jërëjëf. merci beaucoup. ETDR établissement Touba Darou Rahman de entreprise bu mak bu yëngu ci walu BTP travaux de bâtiment génie civil manam lepp lu jëm ci walum tabax kër réhabilité wala réfectionné dañu ci taxaw ba mu établissement Touba Darou Rahman su la nexé mën nañ la jox kaya amé amna gros œuvre ak second œuvre gros œuvre moy liko dalé ci fondation élevé tabax xuule ak rax ci second œuvre bi nak ci ngeen di fekk électricité ak plomberie ETDR amna ñu ay boutique